cahier saak livre ak yeneen yu bagage yu sosoo ci njàng ñu teg ci suuf di ko jaay ñu ngi fii ci Sandaga wetu immeuble kebe juróom ñaari fan ginnaaw bi école ubbee jaaykat yi ñoom ñu ngi wane seen tiis ak seen njàqare ñeel wàllu wi seen liggéey daanaka demeewul noonu sant nañ ne ni mu daan doxee doxewul noonu parce que xamuñu ndax covid bi la ou pas mais yaakaar nañ bu baax na covid bi la sax ay livre la ñuy jaay te boo xoolee amul ay client kon da lay am na loo xamante ne manqué na par rapport euh, ni nga xam ne noonu la daan doxee parce que daan na am rëz boo xam ne da xam ne période bi école ubbi na clients yi chaque jour dañu doon ñëw da nga ñëw fekk mu fees gars duñu am temps mais xam naa gars yi daal xaalis amul Covid bi jàpp na leen ba nga xam ne daal nank nank ñu ngi ñëw par benn benn. non non non non demeewul nam demee moo tax moom laa lay expliquer ne boo gisee ñun solo dañuy fonctionner ci clients ni ñuy ñëwee parce que mënuloo jël engagement indi jënd beaucoup de marchandises. ba pare te marchandise moom client yi doxalewuñu moo tax dañuy xool saa yu démarré dañu xam fonctionnement bi ni mu fi mu jëm moo tax dañuy def petit à petit parce que ouverture dafa doon benn durée bu gàtt léegi te léegi ñi jaay papeterie dafa bëri ñu jaay livre fourniture scolaire cahier et tout dafa bëri partout Sénégal coin boo dem am na fa. ouverture des bi moom ren euh, am na wuute ak euh, ouverture des la jàll parce que comme niñ ko xamee rek mooy Covid 19 bi nga xam ne si nii maanaam euh, moo daj àdduna bi yëpp maanaam impacté na tamit maanaam sunu njaayu livre ren ndax parent d'élèves yi amatuñu yenn moyens pour mën a ñëw di jënd comme ni daan jënde bien vrai que ñu ngi jënd nag waaye njënd mi euh, ndànk-ndànk lañ koy def ndax seen doole moo moo moo demewul noonu loolu daal bon euh, constaté nañ ko si daal waaye nag ñu ngi sant aussi ñu ngi xaar tamit clients yi parce que lu mu yàgg-yàgg xam naa ne dinañ jënd li seen doom yi soxla yëpp mais ndànk-ndànk lañ koy defee daal. bu ñu sukkandikoo naka noonu itam ci Cheikh Boy di parent d'élèves. moom nee na situation bi xaw na metti ba tax na mu ñëw fii ngir échanger ay livre doomam. les parents sont fatigués vraiment avec euh, les écoles privées là ñi nga xam ne dañu bëgg fayloo des mois yoo xam ne élèves jànguñu ko daaw ba pare nga ñëw livre cher vraiment dafa nekk loo xam ne jafe na daal si parent d'élèves yi waaw dañuy <laughs> ñëw par exemple man dama ñëw indi sama livre élève doom yi daaw yi nga xamee ni moom la njànge daaw ma ñëw di échange waaw da livre yi laaj la benn 1000 francs wala benn 750 comme ça daal c'est <laughs> c'est moyen coûteux quoi waaw boo naree jënd ay livres yu bees yëpp euh, boo naree am ay 2 3 gos yooyu day xaw a métti bi tamit mi <laughs> am na ci part de responsabilité quoi donc euh, livres yi bon normalement état bi waroon na mën a subventionner livres parce que Covid bi ñu génn vraiment tout le monde est est en difficulté financièrement parlant nit ñi dañu sonn quoi franchement euh, vraiment état bi daal su si jàppoon daal di subventionné livre yi mu mu baax